jikko yoo xam ni muy jikko yoo xam ni. war nañ ko jàngalaat xale yi war nañ ko jàngalaat xale yi bu baax a baax. parce que jikko yi dafa yàqu. ndax jikko yi dañu yàqu ci réew mi. président Wade jàngal ñu ci lu bari nag. maître Abdoulaye Wade sunu président bii du déedéet du bu Sénégal mondial la jàngal ñu ci lu baree baree bari. bu weesoo li ma wax léegi. bu weesoo bu. gouverné pendant 12 ans. gis président bu xam ne gouverné na pendant 12 ans. Ken gisul xaalis bu mu denc. Ken gisul xaalis bu denc. yorul ay compte bancaire ay milliards nek. yorul ay compte bancaire ay milliards nek. ca. ku mel noonu le sax Sénégal soxla. ku mel noonu le réew mii di Sénégal soxla. man quelques fois. man quelques fois. Bima wéré Sénégal. Bima wéré Sénégal gis lim fi def. gis mom mi tok di maître Abdoulaye wad limu fi def. dama am xalaat man ni Sénégal dal man de dama am xalaat man ni Sénégal dal sociologue yi. sociologue yi. war nañu def étude. war nañu def njangat sur quelle base lañu élire président de la république. ci yan anam ak yan jikko lañuy falé fale. ndaxte qualité yi ñuy falé président ndax jikko yi ñu war a président. yépp mi ngi ci mom lépp mi ngi ci mom li ñuy faral di tudd. li ñuy faral di tudd. moy les réalisations physiques. moy réalisation physique. am aéroport bi mu ko. aéroport bi ñu ko ubbeek. ak limu def ak limu def lépp. waaye jikko yi. waaye jikko yi.

loolu laa gën a bëgg ñu retenir ko ci. loolu laa gën a bëgg ñu retenir ko ci. kii Sénégal dootul am ku mel ni moom. te senegal dootul am ku mel ni moom ëpp na université ëpp na académie jagle suñu borom la. yàlla de moo man lu nekk. yàlla de moo man lu ne. nañu ñaanal réew mi. nañu ñaanal réew mi. waaye yombul. waaye yombul gis ngeen réew mi ni mu demee. gis ngeen mi ni mu demee. ah li fi am de kenn mus ko gis. li fi am de ken mus ko gis. chaque jour. bis bu ne. ñu dégg lo xamni ñu dégg lo xam ah kon boog. kon nga xamni ni. nga Sénégal xam développement. motax Sénégal xam développement. bu mu ñëwagul. bi mu ñëwagul. gisoon nañ ñu réew mi mel. gisoon nañ ni réew mi mel. ak Ndakaaru. ak Ndakaaru. ñi fi nekkoon. li fi nekkoon. le quotidien gérer le quotidien. ci mom lañu xamé les grands projets. ci mom lañu xamé les grands projets. Té bi mu démé ba tey amu fi. la amu fi. parce que ciowli ciowli. ndax ciowli ciowli nak yi ñuy wax grand projet. yi ñuy wax grand projet. mom mi la moom mii la. damay wax toujours wa PDS yi. man damay wax wa PDS yi bis bu nekk ni leen. damay xawa a mer ci débat yi. damay xawa a mer ci débat yi parce que li ñuy wax Macky Sall yëpp defu ci dara. ndax li ñuy wax Macky Sall yëpp defu ci dara. ah centre Abdou Diouf de xam ni moo ah centre Abdou Diouf de xam ni moo ko initié. ba mu ñëwee fekk ñu grande ville euh, la nouvelle capitale. bi mu ñëwee de fekk ñu la grande capitale. la nouvelle capitale la nouvelle capitale. mu ñëw Diamniadio. mu ñëw Diamniadio lam fa def ñep gis nañ ko. lam fa def gis nañ ko. tous les techniciens. tous les techniciens. nee nañu foofu kenn waru fa tabax. nañu waru fa tabax. parce que les sols sont gonflants. ndax souf ya day noyi bâtiment yi ñoo commencé fissurer. bâtiment yi nga commencé xar. lam fa bëggoon def. lam fa bëggona def. xam nañ ko. xam nañ ko. la gare des gros porteurs. la gare des gros porteurs. pour décongestionner Dakar. pour décongestionner Dakar. malheureusement. Waye nak boo xamul. boo xamul. te laajte woo. te laajte woo. dañuy da ngay tëñax tëñaxe. da rek. te fa nga jëm du baax. te fa nga jëm du baax. aéroport beeg yëpp xam ngeen ni la. aéroport beeg yëpp xam ngeen ni moom mii la. malheureusement le TER. malheureusement le TER. moom mii xam na ni du Macky Sall. moom mii xam na ni du Macky Sall. waaye da da comme xamul nuñ ko waroon a defee. waaye xamul nuñ ko waroon defee. moo tax coono yi bari moo tax coono yi bari. yàlla daal yàlla nañu yàlla dimbali. na ñu yàlla dimbali. ay ne leen amin waay.